xalilullahi way jala leen masaana jay lillahi ay na laa fardi xalilillahi ma bismillahi xaadiril murid moom lu ko soob la def ci am murid huwa allasi yafalu ma yuridu هنا الذي يريد المريد وهو أي صمد وباغي subhaanu suuka nafin wa waaxi nan sant tey feddli sun tawidi baxda salaatina alal wahiidi mu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci yéen ci turu borom jataay bi muy Cheikh Mouhamadou Bassir nee na ci turu borom jataay bi di sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdoul Khadir ak sëriñ Modou Ablaye mii nga xam ne fii la dëkk ak sëriñ Modou Ablaye mii nga xam ne nii fii la dëkk nee naa da ngaa waroon di ganale gan ñi. nee na ko léegi yow da waroon di ganale gan ñi. sëriñ Bas ñu ngi lay siyaare sëriñ bi nee na lay siyaare bu baax. Eh, li ma la waxoon nee na la waxoon daaw rek moom la lay fedd den ji. kër gi bi fi sëriñ bi ne. nee kër gi bi fi sëriñ bii ne. sa diggante ak sëriñ bi. sa diggante ak sëriñ bi. mataloon nga lépp. mataloon nga lépp. bi fi nekkutul itam. nee bi fi nekkutit yokku nga lépp. yokku nga lépp. loo daan indil sëriñ bi bi mu fi nekkee. nee na loo daan indil sëriñ bi bi mu fi nekkee. bi mu fi nekkul ful nga ko. bi mu fi nekkul loola. kon nag ñu ngi la ciy sant bu baax a baax Mbacke. di feddiwaat kóllëre bu baax a baax Mbacke. naa laa jàpp bu baax a baax. nee na moom war na laa jàpp bu baax a baax. ndax xam na ni moom jàpp nga ko. lii may wax lii may wax nii itam. nee na lii muy wax it nag. waxoon naa ko biig waxoon na ko biig. xëy na boo seetaanoon rajo yi wala télé yi da ko da ko dégg. nee na boo seetaanoon rajo yi wala tele yi di nga ko dégg. dama wax ne Serigne Serigne Bass. dafa wax ne sëriñ bas kii ñëw ci kër gi tamit muy Serigne Dan moom Serigne kii ñëw ci kër gi di Serigne Dan moom Serigne Abdou Lahad. day xaritam di magam. day xaritam di magam. noonu noonu ko sëriñ dan jàppe noonee ko sëriñ dan jàppe sëriñ dan jàppe man sëriñ dan jàppe ko ni nee na noonu la ko sëriñ Basiiru mii jàppe nee na ni mu jàppe sëriñ dan rek la ko jàppe noonu la ko waxee woon bii itam noonee la ko waxee woon bii itam at mu jot at mu jot ay teraanga mooy jiitu ay teraanga mooy jiitu ci bis bi jëmmam it dafiy ñëw jëmmam ñëw xam naa jot. te xam na ni moom mii amul jot. bu ñëwul woon itam. nee na bu ñëwul woon it. damay xam ñàkk jot la day xam ne ñàkk jot la rek. waaye bis bi bisama. kon njabootu Serigne Cheikh Khady gépp Mbacke ñu ngi lay nuyu. di la ñaanal nga yàgg fi lool Cheikh Basirou. sun borom yàgg yokk sa wér. yàggal la ak Serigne Mountakha. ca yàlla may leen ngërëmu Serigne Touba. nee na ñu ngi la koy ñaanal. ca xol bu sedd nag. lan la koy ñaanal. rahmatullah nee na ñu ngi siyaare sëriñ bi bu baax te di ko nuyu neena di ko sant bu baax a baax ci bis bu tedd bii di bis boo xam ne ni ñépp xam nañ li ko waral neena bi sëriñ Touba bàyyikoo ci tukki bi dénkoon borom Daaru Muxti yoon wépp dee na ba dellu siwaat fekk ndénkaan la nee na bu yemoon fam ko bàyyit mu doy sëkk ak njàmbar ndax ñoŋal ko doy na sëkk ab liggéey waaye dafa egsi fekk lépp yokk kon moom sëriñ Touba moo leen boole sunu borom moo leen boole ci bi ci ci biir liggéey bi kon bisam nee na bisub jullit yépp la waaye képp ku yaakaar sëriñ Touba bisub borom daaru moxti sa bis ndax bu fekkee am nga dara ci ngor. war nga ko koo delloo cib taxawaay ci yoon wi kon nee na sëriñ Abdou ñu ngi lay siyaare bu baax ci bis bii di siyaare sëriñ Modou Ablaye Mbakke mu xam ne ni mu ko waxee léegi rek lim fi doon ñëpp xam nañ ko ndax kenn ëppale wu ko ci bis bi kon ñu ngi lay siyaare baax Mbakke sëriñ Abdou yaag sa bokk yépp di fedd li tan bokk gi ak kóllëre gi li dox sunu diggante muy ak cofeel gu rëy nee na moom daf koo seetlu waxtu wu ne nee na daf la koy seeral waxtu wu ne ndax nee na yow nit ku dëggu nga nee na nit koo xam ne lépp lu muy def rek ngëm-ngëm la ci àndal nee na cër bi nga ko sedd ci boppam it xam na ko bu baax nee na moom it sedd na la cër bu ëpp loolu ci jëmmam nee na di la sant ci ni nga taxawoo bay see xadi ginnaawam ndax taxaw nga ko ci biir ak nekkam ba àdduna sépp xam ko nee na bi mu fi bàyyikoo nag taxawee nga na nga war a taxawee ci uuf njaboot gi sàmm kër gi sàmm njaboot gi ba ku fi ñëw dina xam ni yokk nga yokk nga ko bu baax a baax a baax nee na képp ku bokk ci Serigne Touba mu bàyyi la ci barab nee na noonee rek nga war a def ñu ngi lay ñaanal sunu boroom gën laa sàmm dëgëral la kattanal la ba li nga yéene liggéeyal sëriñ Touba. ak sa waajur yàlla may la ak kattan goo ko defee ci fekke akuk tal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu leen ñaan sëriñ bi ñaan yaa man maa andil asa wa nara ma xawta ma alaya mara min bara yaa man jamia xidami tam tam ay mala xaali xalilullahi way jayla leen masaana jay lillahi ay na laa fardi qalilillahi